vraiment. Euh, est-ce que yaay en tout cas il faut énormément de tact le divorce bi am si taxaw ak euh, yeewi askan wi c'était prévisible. donc kooku moom ça me ça me regarde même pas et ça me concerne <laughs> léegi la gravité de l'heure je pense que comme vous l'avez dit il y a Superman qui est là qui s'est rendu de sa force et qui va aller jusqu'au bout je suis tout couleur comme ñoom ça s'appelle euh, nu mu Lamade Mm. Lamade. c'est mm. mon jëfe moo Lamdo. Lamdo Lamade mm-hmm. et kooku il s'est donné tous les moyens pour le faire. Mm. Hein? c'est à que ça a commencé. ñu tiré ci ay xale yu ndaw. c'est ça qui me dit aussi que son a encore du pouvoir parce que le deux et le premier et le deux les gens sont sortis en sachant tous les les dégâts que était prêt à faire le Lamdo. Euh, <laughs> moi je suis vraiment ah li ma gis xaw naa gisu leen ko vraiment ñi les morts que j'ai vus les hmm. balles de que j'ai vues les fusils que j'ai vus jusqu'à présent ils sont sur le bord de la route ils nous empêchent ils nous aident même pas à traverser à Pikine on a passé une heure avec des gendarmes qui sont là dressés à, à est-ce que vous êtes rendu compte qu'aussi dans le recrutement il y a eu une ethnie qui est, qui a pris le dessus si les journalistes je vous je vous je vous les chercher je vous les chercher non non. parce que ah, bay non mais du ci yoon bi laa ko xamee. wax naa du ci yoon bi laa ko xamee. quand je vais dans les interventions je suis des deux côtés. oui y a les jeunes qui se battent il y a hein et il y a les autres qui se battent contre eux ces gens-là aussi c'est des êtres humains. am na ñu ñu ciy xàmmee am na nit ñu ñu ciy xàmmee am na décision bu ñu ciy xàmmee. empêché leen ngeen mën a agsi pour dimbali. ñi nga ñu empêché buñ non même ñoom dañu leen di dimbali. ce qui s'est passé nag ak Bamba c'est que euh, la le médical est démotivé aucun de mes médecins ne veut plus sortir pour aller chercher quelqu'un mm. léegi c'est les gens qui nous les amènent ah. mais on les a fréquentés quand même de visu entre deux grenades et deux deux trucs on s'est rendu compte qu'il y a un recrutement ethnique qui est <laughs> D'accord. En tout cas, les Lambes sont là, surpuissants. Ils ont gagné un premier lot. Le deuxième lot, man, je pense que je ne sais pas vraiment quels sont vos arguments, mais je pense que personne ne fera personne ne fera comment le, le poids. Mmh. Et c'est longtemps a... aussi que pendant longtemps on a dit qu'au Sénégal il y a des choses qui sont pas possibles. Oui. dictature mënu fi am rey ay nit mënu fi am. ñu reyoon kenn en 2011 le certain Diop là. Mamadou Diop hmm? on est allé jusqu'au bout jusqu'au tribunal mieux que même le dossier de de Barthélemy qui, était à, la même période donc là aussi vous rendez compte de la force du pouvoir sur la justice ce dossier de Barthélemy pourquoi il a traîné mmh. pourquoi il a traîné 2011 2023 pourquoi il a traîné dès que Macky est monté il a mis son coup dessus C'est quand Barthélemy a commencé à faire le. <laughs> bon, je ne dis pas. sais pas quel mot utiliser. Hmm. que c'est le dossier remonté. Donc, vous savez, ce, pouvoir, déjà, euh, par des armes et par cette maîtrise de la justice, je pense qu'on n'en est pas encore sorti. Thierno, maa ngi doon wax sànq Bachir Pape balaa ñuy dellu parce que bëgg naa ko dégg foofu itam euh, ci euh, divorce bi am nii ndax gis nga ci opposition. koo xamante ne situation bi mën na ko jëriñ arrangé ko waaw mën na ko arrangé ci situation bi nii bon xam nga déjà dafa am euh, benn kii koi bu xew ni actuellement Sénégal élection yi jëm moom dara leerul dafa disparaître ba mu ëpp ah. waaw fi ñu jëm nii hmm. parce que élection par défaut lay nekkaat encore présidentielle par défaut bu ñu moytuwul. par par défaut parce que bee passé sélection présidentielle la plus pour ku ne élection présidentielle xam nga parce que ñaar dañoo dañoo écarté ñaar ñi nga xam ne nii ñoo waroon topp ci Macky Sall normalement. au regard à la lumière des résultat des législatives de 2017 mooy Karim Wade ak Khalifa Sall boobu Sonko xeexul xeexu Khalifa Sall de. ak Karim xeexu ko de. il n'a il pas porté leur combat. ah c'est vrai aussi. xam na la moo doon conséquence logique bi ñu ne bu Karim ak Khalifa demul élection du ñu dem créé woon nañu boobu benn kuréel kuréel dans ce sens xaw ma lan des vingt cinq créé woon nañu benn kuréel xaw ma lan vingt cinq ne kenn bu mu dem après dafa am ñu dem bi mu leen arrangé Sonko ci la bokk il a déchiré le pacte Macky Sall l'a fait en 2011 dañu bu Abdoulaye di nekkee candidat bu kenn dem ñu signé ko fii ci benn hôtel de la place ñu ko signé. Macky Sall a déchiré ce pacte ñuy bind ci miir yi Macky Sall la traître du M23. Idrissa Seck ku mel ni Idrissa par exemple loolu moo gën a gàllankoor dégg loolu tam présidentielle par défaut nga koy mën a jàppee deux mille euh, nu mu tuddati deux mille douze. parce que diggante 2007 rek ba pare rek opposition bi dafa boycotté législative après la présidentielle de 2007. léegi ñoom dafa mel ni compté tuñu ñoom euh, nu mu ci élection pour ñëw léegi Macky Sall moom bi mu ñëwee ci opposition loolu mos naa ko for ku jege Macky Sall. après nekkoon na sax euh, kii quoi kilifa gu mag en tout cas ci nguuram pour ne pas trahir source bi euh, Macky xamoon na li ci fiche bi c'est-à-dire que ñoom dañoo war naa Abdoulaye dafa kii quoi dañoo jalgati élection yi ci temps Abdoulaye présidentielle yi mais Macky am na ku mu wax ne ko man maa doon directeur de campagne nekk premier ministre fichier bi dara nekku ci et li mu wax dëgg la en 2010 ay Félix ak ñëpp dañoo certifié fichier bi ne dara nekku ci après xam nga léegi nag ñoom li ñu doon joué mooy euh, élection 2007 yi Abdoulaye gagné wu leen à la régulière fekk Macky xam na ne fii effectivement élection mën na gagné après nekkul ci télé yi de moom ci terrain bi la nekk wuti. léegi nag ñoom bi ñu nekkee foofu xam nga ñoom dañoo defoon ne affaire ay xeex la ak yooyu moom mu jaar fee nee dem dégg mu jaar fee après de présenté wu fii tam loolu la bu ñu nëbbante. ñoom hmm. Khalifa sàll hmm. ak Karim Wade xeex nañ ba sonn. xam nga damay dégg ñu naan fii soo ko moo commencé xeex Sonko commencé wul xeex bi fii Dakar heure boo gànnaan diggante parce que nguuru Macky Sall gi moom métti xam nga nguuru bi dafa mel ni lilo ku génn ñu jàpp la. dégg nga man man. am man loolu am. ku ci bëgg nga wax ma. maanaam si lecture bi nga am moom lay wax nii. waaw gars yi nga gis nii nag Thierno xanaa am na. non loolu loolu léegi léegi Sonko ñoom Sonko. bàyyil Sonko ndax moom. non da nga a laaj opposant yi kay di nga ci boole Sonko. non c'est la bonne yàlla ndox bi sax Sonko lay. waaw waaw waaw taxawu Sénégal bi nga xamante ni ak tey yeewu askan bi divorce am waaw xam nga xam nga boo seetloo ñi gën a gàddu xeex bi c'est plus Pastef moom la ñu gën a dégg waaw ci ci ci génn géeg ci wax yi même bu dee la conférence des leaders génn na en document mais tey dama ne suñu doon wax si li ñu jëm élection yi cette situation si kan la kan la mën a jëriñ ci ñi nga xam ne waaw moo tax ma ne tontu xam nga actuellement mooy variable d'ajustement li ñu tuddee ah. mooy séddale mooy distribuer affaire yi quoi tey loolu. Hmm. loolu il faut ñu wax avant deux mille dix neuf nekk ko woon. bu hmm. baaxee léegi moom moo ko nekk léegi les gens vont se déterminer en fonction de Pastef au lieu Pastef di nekk variable d'ajustement mais Pastef mën na jéem a doon constante mu régler mu taxaw ci benn place au lieu ñu koy utiliser. Hmm. moom muy utiliser waate. xaw ma nag comprendre nga. léegi politique dafa am ñaan le prédéterminisme des faits politiques mbir bu xewee da ngay xool par le passé ou dans l'environnement. ban présidence nga mën a servir gis nañ la cas de Adama Barrow hmm. mais xam nga foofu dissoudre seen parti dañoo topp hiérarchie bi di tànn di tànn ba egg ci aadama Barrow gis nga ni mu mel ah mais bu ñu la falu président léegi am na yenn cas yoo xam ne nii euh, mu nga def euh, plan B bi maanaam euh, nga ta nga xam nga ñoom dissoudre seen parti léegi tey mun hmm. nañu orchestrer kenn quoi xam nga Idrissa Djiboka en 1998 bi ñu ko xajee bokk ci élection yi. bañ ko jox si dafa jël bu Talla Sylla bu jëm jël. exactement Idrissa en deux mille. Euh, nu tuuti sept. Euh, bu instant Sankharé koo xam ne conseil Abdoulaye Wade la woon ci palais bi. yàlla ko yàlla yërëm. amiin nekkatu fi. mais mu lay utiliser léegi fii tam Pastef mun na xool nu mu tëjee bopp. jàpp si sinon bu deful loolu xam nga luy am. luy am noonu lii mooy am. fii wax ci gars li ñuy wax yëpp sama sama xarit Pa Assane fu mu waxee ne Pastef la plus grande force politique par Assane bi ñu commencé di werante ci kawam mën na ñaari at ba tey te toujours man ma jox ko ay chiffres Pa Assane defal ndànk xam nga riir bokkut ak réalité ci élection te gis nga élection luñ ciy gën a dem rek don yi day gën a changé gis nga John yi ak kii George Bush en 2004 tout le monde donnait John Kerry vainqueur oui mais politique parfois ça tient sur un, sur le fil d'un rasoir parfois benn don bu ndaw rek day changé après lépp. je suis d'accord est-ce nga. gis nga donc 2000 kii lu xew. élection locale ak législative Macky Sall moom ingénieur la quoi. loolu da nga koy nangul qualité ma. il a parlé deux fois. yàgg na non pourtant je suis kii sama non li may wax moo arrangé wul quoi non mooy arrangé wul pourtant. waaw ah, li nga wax arrangé non sama temps de parole yiwul de. je crois que de parole kay fi mu toll nii. léegi alors xam nga ma wax. non xamul ma bëgg a wax. comme ça waaw léegi xamul ma bëgg a wax. boo c'est buy def tactique bi comme moom il représente ici benn mouvance quoi xam nga bu fekkente ne su may wax tamit mu dagg ma nag ma manière boo xam ne bii nii xam nga. mais yeggali wax nga ni nga ne Macky c'est un ingénieur oui. ne Macky Sall. c'est un ingénieur oui. Ah, man franchement génn naa. dafa am lu ñu waxul xoolal arab non dama laaj kan lay profité ma lay expliqué man affaire terrain politique laa lay wax waxuma ay waxu gëm gént réalité politique laa lay wax hmm. souvent opposition mooy gagné zone urbaine yi depuis 88 la loolu et c'est lié au contre-coup des ajustements structurels crise économique bi fii lañ koy gën a ressentir quoi ci ci monde ki fii dafa gën a métti que àll bi parfois mais àll bi parfois vote affectif bi foofu lay gën fonctionner xam nga quel que soit sax crise bi foofu vote affectif moo fay fonctionner xam nga léegi Macky Sall daf ci teg lu mu tuddee la stratégie de l'encerclement des villes par les moom teel na xam loolu. que ne mënul am lu bëri ci ville souvent nguur li muy am ci ville yi du bëri mu concentré wu ci àll bi mooy Senghor tam technique boobu la amoon il a fondé son expansion politique sur le vote rural. Mm. et ça comprendre nga léegi boo xoolee bu ñuy joxee résultat yi da ngay defe ne bu ñu naan Pikine Guédiawaye Thiès Kaolack. da ngay defe ne opposition bi gagné na fépp. mais Sénégal àll bi ci la bokk. Mm. donc dafa ndànk foofu léegi benn affaire parti démocratique sénégalais aussi bien aux législatives qu'aux locales lu mu dee dee am na quatre cent cinquante mille parce que ancrage bi dafa yàgg. xam nga parti boo xam ne depuis 1974 la mu nekk ci cadre bipolarité. ku dul PS rek souvent PDS nga. c'est juste ba tey dañoo dañoo téye ñoom am na lu ñu téye. c'est juste est-ce que comprendre nga léegi nag Sonko fi mu fi mu fi mu féetee foofu la riir bi nekk mooy xale yi. Hmm. mooy xale yi quoi léegi da ngay defee ne ñoom ils sont parfois. Hmm. mais jëlal nga defaat calcul toujours ma wax la ko pur bi ngay wax noonu par exemple mais dama xool ci banlieue bi par exemple fan la Yewwi gagné souvent. boo dindee électorat pur rek après APR dafay gagné. benn bokk yaakaar dafay gagné foofu. parce que dama ne la en 2017 man dama ko calculer avec un statisticien l'électorat du pur c'était 153 000 voix. c'est pratiquement 153 000 voix. léegi boo defee localisation bi zone yi nga xam ne comme Pikine Moustarchidine dañ fa am doole par exemple. Hmm. et cetera et cetera. donc logique yooyu ngay kii quoi ngay ngay ngay dugal léegi bu loolu weesoo état. bon ah nga nga yokk ci les listes électorales yi nga xam ni dañu bloqué cette jeunesse là. Ah. waaw waaw léegi nga yokk ci benn facteur nag. inscription yi.